salaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag li ñu indi fii wala fi ñu toog yaakaar naa ne moom mooy kër Wally Ballago Seck Wally Ballago Seck nag nekkul ku ñuy présenté ci Sénégal li ñu fi indi nag Babacar ku ne xam na ne yëngutuwul ci showbiz maanaam bokkul ci li may wax ma ci làmb ma nit ñi xamee Njogu Mbay mi ci làmb la ma xame su Dieng ma leen noonu kon ci làmb laay wax ak moom ki ñu fendi nag kenn la mooy Alaaji Papa Dieng di bàyyi Youssou Dieng te defe naa ku ne Alaaji Papa Dieng ne Wally Seck ndax Youssou Dieng doom jaa tax te loolu yàgg na diggante Papa coon la woon ak Alaaji Papa Dieng Papa Thione ñuy ñaan yàlla yal na ko yàlla xare aljana Wally tey dañ fi ñëw ngir drapeau boobu te Alaaji Papa Dieng daf la lancé appel daf la mm. woo mm. ci nga jàppale ko ci bés boobu jàppale promoteur bi tëgg ci bés boobu parce que nag dañ koy delloo njukkal muy koo xam ne sa kilifa la di kilifa ak Youssou Dieng di kilifa ak ñun ñëpp parce que ñun ñi tamit daf ñuy inspiré maa ngi lay nuyu di lay maa ngi lay ziar sama soppe maa ngi lay bëggee maa ngi lay màggal di la ziar bu baax a baax. Mhm. di nuyu waa Equivox yëpp ah. Mhm. di nuyu aussi euh, téléspectateurs yi nga xamante ni ah, amateurs yi. Mhm. ñu ngi suivre lamb ji à travers yéen. di nuyu suma papa Alaaji Papa Dieng. ñuy ñuy liggéey maak moom muy suma mag ñu ànd ànd nawle. macha allah waaw. Euh, bés bii nag képp kuy géwél rek. Mhm. ñor na la. Mhm. waaw ñor na la lool lool lool lool. Mhm. dama am euh, contrainte man dama am contrat. war a génn mais dama ne il faut ma sànni ci samay kàddu parce que waajur la ci man. teg ci nag di référence ñun si ñun. teg ci nag muy suma baayu xarit. Youssou Dieng. ñu ànd maag moom waxaat naa ko léegi ànd nawle. Youssou waaw donc El Hadj Papa Dieng bu ko tuddee bés. bés boobu bésu géwél yëpp la. dëgg la tey boo demoon ci kër papa Youssou ñi la koy waxee. Youssou Ndour waaw. waykat yu ndaw yi noonu lañ koy waxee. Mhm. ba ci man mi ci gën a ndaw ci waykat mhm. yi. Mhm. vraiment donc euh, ñi ngi koy ñaanal euh, jàmm ku du fan ak di ñaan bés bi tàmbale ci bisimilah jeex ci alhamdulilah rabbil alamin. yàlla mën na ko am na ko yàlla ko yàlla def na ko yàlla def. Alaaji Papa Dieng ba mu doon wax tey ci Alaaji Papa Dieng. Euh, loo ma mën a wax ci moom loo xam ne jàpp nga ko koo xam ne jàpp nga ne kii royukaay la ku ñu war a déglu la. un homme intègre, un homme digne, avec beaucoup de personnalité, un homme et mm-hmm. instruit. Mm-hmm. loolu gis nga ko ci moom. waaw surtout. Euh, surtout loolu mais tamit defe naa ci côté sport bëri na lum ci xam di ñu bëri dégg nañ ko à travers Sud ak yeneen i plateau 2STV fu nekk muy wax ci sport mais ci làmb rawatina lu mu ciy wax di li loo xam ne nii yow mi koy déglu dangay am yëg-yëgu. bàyyi ko muy wax doo doyal. bon ci samay nopp d' après li ma jot a dégg il a tout le temps été un sportif. Mhm. moom euh, làmb lay wax peut-être mais noonu la xamee football. waaw ah, loolu am donc yàlla dafa dogal moom lu jëm ci côté sport. Mhm. ku ne xam ne ni dayoom la. Mhm. mais li may wax rek ah xam nga culture générale dafa am solo te moom dafa cultiver. dafa cultiver waaw kilifa la boo xamante ni euh, du man rek maa koy déglu. dëgg la ñëpp a koy déglu su ne dama ne. Hmm. nañ ko déglu ndax xam nañ ni fi mu jëm du déraillé. te li muy wax dëgg la ci moom et c'est très très important. tey boo gisee groupe bu mel ni Equivox TV nekk benn groupe de presse boo xam ne group de presse la ñëw am ci biir Vox Arena ñu ay jeunes sénégalais moom ko taxawal ko tëgg làmb jël làmb bu mel ni Tyson 2 ak Garga ak Tyson ak Franc Mama Lamine Garga ñu jël Mama Lamine jagleele ko. Alaaji Papa Dieng moom ak Garga 2 est que xam nga Mama Lamine ak Garga 2. moom xam naa ko. Garga 2 waaw ndax euh, à travers Arma suñu goro la. waaw <laughs> waaw gis naa Arma. <laughs> waaw. waaw ak ki nga xam ne nii moom mooy. Euh, Mama Lamine bu ñoom Siteu. waaw Mama Lamine Tarkinda waaw Siteu moom sama sama sama la. Siteu waaw. donc euh, c'est le Sénégal. Mm-hmm. ah mooy suñu culture làmb. Mm-hmm. dañu war a bu ndam jógee. Uh-huh. kii am ndam xam ni yàlla ko jox ki ko mhm. ñàkk xam ni ko xañ ñaari xale yu war a bëre bëri bisu alaji papa Dieng ñoom ñaar loo leen di wax waa ñu ngi bëre drapeau ku diñ nañu diñ ak lu mën a xew nañu diñ ak lu mën a xew nañu diñ ñi ko taxawal rawatina waa Equivox TV loo leen di wax ñoom tamit en tant que ay jeunes yu nga xam ne dañu porte benn sans compter Vox Arena chapeau parce que alaji papa Dieng li wax rek tey bés bi su fekkoon moom contrat dina bokk ci ñëw ci ñi ñëw lamb am na. waaw parce que moom dayoo moo toll noonu. Mhm. ma ni ah, ah, sargal ko léegi war na. sargal Alaaji Papa Dieng. waaw dafa war en fait est que y a des hommes de l'ombre bien sûr. Hmm? ay nit yoo xamante ni ils se sont tués pour ce pays. Mhm. reyante pour dëkk bi. Mhm. nañ leen di sargal léegi. léegi biñ koy fekk di leen teral léegi seen njaboot di ci dem di ko yëg. c' est très très li ma mën a xamal daal mooy ku digne la un homme intègre poli respectueux euh, lan ngay wax ñi nga xamante ni ñooy borom ñoo nekk ndakaaru ak fukki penc ñaar yi nga xamante ni ñoo nekk ndakaaru parce que drapeau bi ki ko tuddee doonul ku ndaw waaw xam nga ndakaaru moom euh, boo ne fukki penc ñaar lal nga lépp mhm. li ko dalee mbot Yoff ah, Cambérène fépp sax ah mhm. du yomb de yëmbal ak waa yëmbal mënta yomb wallaay wallaay dëgg donc euh, moom xam na nañu dina ma gis. dina la gis. Ah, ndax euh, bu fi sa nekkee Aziz nekk fa. Mm-hmm. waaw Jo Mbay teew fa. Mm-hmm. Jibi Diop Faye. Mm-hmm. mat na. ñëpp maanaam waali teew na. mat na dëgg la. ñooñu c'est des waali ambulants. c'est des waali ambulants. waaw macha allah tey waali nu mu gisee làmb ci Sénégal. ça va làmb ça va ça va et que les aussi ils di ko mhm. di ko di ko dekkilaat di ko gën di dekkil mhm. ah mhm. xam nga corona li mu rey du lal du làmb rek li mu rey bëri na na donc euh, promoteur yi ay jàmbaar lañ ñu ngi ñëw en force c'est bien chapeau promoteur ñu ngi ñëw en force mais promoteur bi nga xam ne moom mooy ñëw le 19 yaa ngi dégg ñoom wax naa la ko léegi ci see bii mooy waaw ñu ngi leen di wax dal leen nag jàmm comme bii mooy seen bu njëkk waaw yàlla bu mu doon seen mu amin waaye yàlla nañ ci am ndam buñ ko amee yàlla nañ ko jëriñoo yàlla sedd guy. Mhm. incha allah ñun ñëpp ñu fekkee ko. ñu fekkee ko te tal ko. waaw. doon kàddu gi nga xamante ni moom ngay tëjee ak lan ngay tàggatoo Sénégal yi pour journée bi nga xamante ni mooy le 19. je remercie tout le monde. Mhm. di ñaan Sénégal am jàmm yàgg fi lool. jàmm ji sax lool te wér. Mhm. Euh, encore une fois merci. Euh, jàmm ci Sénégal jàmm ca kanam mais Wally am na lu ma bëggoon. benn acapella bu ndaw pour le 19 ak Alaaji Papa Dieng. waaw ah, loolu moom baaxoo ma ko nag. baaxoo woo loolu. waaw du may du may faral di. di di di di kii nii rek xam nga ku ñuy fay di setaan moom. waaw. <laughs> day daal di ëpp da ngay xaar ba waaye waaye waaye naa leen xamal daal. waaw Alaaji Papa Dieng. waaw ku baax la. ku baax la waaye it ku baax nga. jërëjëf Papa Ka. sénégalais yi ñoo ko wax. man waxuma ko de. jërëjëf ñee nañ ku wax baax nga mbaax googu yàlla na ko yàlla saxal amin amin amin amin mhm. bu ñu bu ñu naree beew bu ñu naree fuy bu ñu naree reew ah, bu ñu naree yëg suñu bopp rek mhm. yàlla ñu yàlla wàññi ak sa amin incha allah di la jaalewaat sa wayju di ñaan yàlla yërëm ko jégalu barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jërëjëf mhm. am nañ ci yaakaar ak sa yàlla dina ko def bu soob yàlla ak sa yàlla ñu yàlla yéexee amin bàyyi ñu fi ñu koy ñaanal ba ci kanam ak kanam